di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet di am contentement dialogue ak yéen chaque jour mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ñu ma feggool Assane la. jërëjëf Ndeye maa ngi lay fay di la ñaanal jàmm ak salaam di kontaan ci yow sa muraay bi chaque jour ni nga koy tegee baax na macha allah li ma lay wax rek mooy bu koor gi jàllee. na nga fexe ngir yàlla na nga ko wéyal nuyu suñ mbokki internet yi nga xamante ne bii ñoom tamit dañ ñuy topp bis bu yàlla sàkk ci revue de l'arène ñaanal leen jàmm ak salaam yàlla na yàlla nangu suñu koor wante yàlla na yàlla nangu seen koor yéen tamit. Assane nuyu naa la. ne Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. mooy ak seen kanam yu sérieux yéen ñaar kooku jàpp na leen de <laughs> yàgg Assane. baal nan la moom lundi 19 avril 2021 ci les écoles la xëyee doore ko ak xibaaru lamb lam ca xam ne nag mooy Aziz Ndiaye ba mu xëyee ba mu mooy la reconversion du lion de Guédiawaye di Balla Gaye numéro 2 nee na bi su bàyyee lamb ci immobilier lay dem ak mbay euh, les écoles moo bind loolu Aziz xëy yëkkati ci kàddoom Aziz nag ku nekk xam ne digganteem ak Balla Gaye 2 ñoom ñaar benn lan mën naa ne samedi lañu ak dimanche Aziz li mu yëgle mooy Balla Gaye bu demee bu bàyyi bëre ci li muy fas yéenee yëngu ci li mu fas yéenee dugal li nga xamante ni bii moom mooy alalam mooy wàllu mbay ak wàllu immobilier Assane. dëgg la Mbaye Babacar journal Les eco moo xëy annoncé loolu nee ne Aziz annonce la reconversion prochaine di Lion de Guédiawaye Balla de 2 va bientôt se lancer dans l'agriculture et l'immobilier noonu la ko euh, Aziz Ndiaye xamle nee na Balla def na maintenant 15 ans ci làmb ji jot na nag mu préparer reconversion bu demee bu bàyyi tekki wala mu tekki ngemam fan la war a investir xaalisam léegi daal ñaari domaines yooyu la gis mooy immobilier bi ak agriculture bi pour mu mën a lancer xaalisam boobu. Uh-huh. ca noonu nag Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro de part et d'autre dañoo jël jël combat ci kaw combat. mi noonu ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa am combat ba pare Assane jëlaat beneen combat muy Balla Gaye 2 ak Boy Niang mu mel ni ñoom ñaar nag ñoo xew jamono yi ci journal yi ndax. ku bind mënoo leen a ñàkk a bind lu waaye laax lu nekk il faut nga ràccaaleen ci la ràccaale leen ci ñoom ñaar combat boobu mooy def li nga xamante ne bii moom mooy buzz ndax combat bi ku ci ñaari combat la ci ñaari côté yëpp asal dëgg la Mbaye Babacar la nouvelle tendance de l'arène comme ni nga ko waxee moom mooy nga am ñaari contrat signé benn contrat signé waat beneen ci kawam loolu mooy tendance bi les échos moo ko wax bala Gaye nag mu ngi ñëw ci journal bi di justifier le fait que mu def loolu nee ne moom xaaratul mi ngi bëgg euh, yàgg ci làmb ji bu ko neexee sax mu tegale cinq wala quatre combats euh, wala quatre contra di ko signé ndax nee ne at yi léegi mu màgget te jour également duñ ko xaar boo ñaa moom nee ne lu tax mu nangu lool mooy que dawul dara luñ ko pré luñ ko proposé rek moom da koy jël wax na dëgg Balla gay wax na dëgg at yi xaaru ko te mag ngi njëw te ab xaalis dafa baax ci doomu aadama ah maa la ko wax noonu mu def baax na man ànd naa ci de <laughs> te loolu nag Gaston Mbengue mi tëgg combat ba la ci xam ne nag mooy Balla Gaye numéro 2 Boy Niang combat boobu Papa Thione la koy daal di duppee euh, la ñu fas yéene tuddee combat boobu lay nga xam ne mooy am ci diggante Boy Niang ak Balla Gaye di combat bi nga xamante ni bii Assane wax nga ko sànq moom mooy def tendance ki yëkkati yooyu kàddu nag mooy suñu papa Gaston Mbengue moom moo wax loolu nee na incha allah combat bi papa Thione la koy tuddee fas yéene ko ci rendre hommage. dëgg la may Babacar la combat Balla Gaye 2 Boy la no de Thione Seck noonu la ko euh, Gaston Mbengue waxee ci biir journalu Les ko nee nag Thione xaritam bu baaxam la bu baaxoon la te def na lu nekk ci euh, biir musique bi daana conseil conseiller jeunes yi donc bu fi génne àdduna mérité na ñu jël benn drapeau bu toll noonu duppee ko. njukkal ko ci. am na solo Assane. ca loolu nag dañuy jógee fi nga xam te ne mooy les échos daal di jàll fi nga xam te ne mooy journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk la mu ca xam ne mooy lu nag la mu changé mooy combat ba nar a amee décembre waaye changé na li nga xam te ne mooy la mu ko appoon war ko mën a yóbbu Gambia fee tëgg ko ko. ñu ngi noonu kon léegi waa Gambie bokkatuñu ci boobu combat Ndeye Mbacke mm-hmm. euh, wala boog du fa amee. Euh, bu leen neexee nag ñu ñëw seetaan ko fii ci Sénégal ci weeru décembre lañ ko fas yéenee amal incha allah muy dox ci diggante Ama Baldé ak Modou mi nga xamante ne bii moom mooy euh, roi des arènes euh, mën nañu wax ne Luc Nicolaï mi taxawal boobu boobule combat soppi na li nga xamante ne bii moom mooy ay plan dëgg la Mbaye Babacar Modou amaabale en décembre euh, la Gambie exclue noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na Luc Nicolaï sans ses plans bu njëkk dafa prévoir un bi ci euh, saison deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt et ah. mais nag dafa mel ni day day yóbbu combat bi ba mois de décembre ñu fàttali ne. Euh, décembre 2019 la signé woon contrat entre ñaari mbër yi ah. mu war ko donc yóbbu ba euh, décembre 2021 ah, donc day nekk deux ans yu mat sëkk combat boobu nag nee lu tax mu bëgg ko yóbbu décembre parce que date yi moo fees mois de juin fees na mois de juillet également bëri na ay combat ndax Tapha Tine euh, Boy Niang 2 foofu lañ ko prévoir Balla Gaye Bombardier année weer boobu lañ ko prévoir donc day xat trop pour nga tëgg fi benn combat royal mm. loolu tax daal mu dem ba mois de décembre pour teg ko fa waaye après loolu nag euh, kii di Abdou Bakhoum di manageru euh, euh, Ama Balde ah, ah, ah. moom nee na Modou Euh, dafa d'accord ci ñu pousse date bi le fait que mu d'accord nag nee na comme si Modou Lo dafa bëgg daw combat bi dafa ragal Ama Baldé looloo tax daal fu ñu bëgg ko fu ñu yóbbu combat bi rek Modou Lo na pour yóbbu ko euh, pour bëre ko. dëgg la Assane. Daouda génne ko ci na jur bëri na ko biir di nga bëre Woussine di nga bëre mu neex la di nga bëre mbay <laughs> mu nga bëre. Oh, te loolu nag Gaston Mbengue bii bi di jaaba jale fu nekk persiste tey leeral lam xam ne nag mooy dootul fay benn mbër lu ëpp 100 millions ca journal ba loolu la yëgle. nee na waxi démbam mooy waxi tayam nee na fas yéeneetul fay benn mbër lu ëpp téeméeri million ba tax na nee na Balla Gaye li mu ko fay ñu bëree ngi naan li mu ko fay ëpp na téeméeri million mais nee na li mu ko fay àggul ci téeméeri million nee na ba Boy Niang moom li mu laal ci combat bi su ko laal ci benn komba dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Gaston Mbengue persiste et signe je ne paierai plus à un litre cent million noonu la ko journal euh, suñu lamb bindee xam nga après bi euh, combat bi taxawee journal l'observateur moom moo bindoon ne Balla Gaye cent cinquante million la ko Gaston fay ci combat bi. Ah. Gaston nag ñëw di leeral ne moom dootul fay mbër. cent million nee na Balla Gaye lim euh, jot ci combat bi matul 100 millions mais Boy Niang moom lim jot mosu ko jot ci contrat bu mu mës a signé ak beneen promoteur. kon leer na kon ñoom ñaar ku ci nekk li nga jot matul téeméeri millions. matul téeméeri millions. dëgg la. man de bu juróom fukki millions rek boo ma ko fayee boo ma koo ma booleel ma rayante moom. <laughs> Sa Thiès Moussa Ndoye Forza Pakala kii di Gaston Mbengue fa ko àpp nag mooy le 26 juin incha allah mbay ba suñu papa Gaston Mbengue moo tëggate loolu moom mi nga xam ne dafa ñëw rek xuuf paa bi asam moom moom daa mel ni mayul kenn dara yaramam dafa tàng fan yi moo tëgg Sa Thiès ak Moussa Ndoye tëgg Forza ak Pakala incha allah bu ci yàlla àndee mois de juillet incha allah la ko bëgg a tëgg Assane nee na jàpp li nga xam ne moom mooy ndaj bi ba noppi. dëgg la may Babacar Sa Thiès Moussa Ndoye Forja Pakala combat boobu donc mën nañ ko xaar mois le 26 juin euh, lañ ko retenir. loolu le 26 juillet. juin juin ok. le 20 juin le 26 juin lañ ko jàpp finalement ndax combat bi juillet lañ ko jàppoon. bëggoon ko def ci diggante euh, Balla Gaye Bombardier. Ah. da bëgg ko def ci même jour. mais finalement dafa repousser wala dafa dafa repousser date bi mois de juin jël combat euh, Bombardier Balla yóbbu ko mois de juillet. donc daf ko daf ko investir daf ko transvertir xaw nga transvertir lañ koy waxee. Uh-huh. loolu la def donc combat bi naa mën nañ ko xaar mois de juin au lieu de mois de juillet. ok kon leer na ma nga noonu. ñoom nañ préparé. ca noonu la mbëtt bëgg la bal bëgg kii di Reug Reug depuis xam ne nag mooy mu ngi woo Gaston Mbengue nee na bëngoon ji la B52 de Mbour daal dajeeg moom bu jógee ci nga xam ne mooy hmm. Bombardier lay laaj Assane <laughs> waaye am na wax na dëgg nag. ndax Reug Reug fi mu toll nii mbër bu nekk war naa mën a jëflanteeg moom ci làmb ji gannaaw boo mu amee trois combats trois victoires ci MMA bi ba pare di def ay preuve am ci bëre dóor bi nee na fi mu toll nii ki mu teg tam moom mooy bombar Bombardier te na ko ko père Gaston jox dëgg la Mbaye Babacar Reug Reug mi ngi am 14 combats ci arène bi 14 victoires 3 combats éléments 3 victoires bu ñaata. macha allah jaay rek waay 17 donc bu laajee Bombardier wax na dëgg. mu mm-hmm. yeeg am naa combat nag contre guy gi. Mm-hmm. nee na moom li tax mu bëgg amaat beneen combat nee na moom euh, euh, objectif am moom moom mu am 3 ci saison bi benn combat rek arrangé wu ko loolu tax mu bëgg euh, Gaston tëgal ko beneen combat comme ça saison bi mu mu am man ci am combat yu bëri. ca loolu nag ginnaaw yàqu-yàqu TV ba léegi ñu ngi topp li nga xam te ne mooy sanction teg ci seen ndoll la xam ne nag ñoom moo ñu ngi xaar CNG changé li nga xam ne mooy sanction yi ndax métti na lool ci gannaaw bañ ci daanee juróomi mbër Ndeye Mbacke mhm. yàqu-yàqu yooyu amoon fële ca arène national ñëpp di ko ñaawlu euh, daan nañ ci juróomi mbër maanaam sanctionné nañ leen ci mhm. wante nag déglu nañ président écrit yi Assane mhm. mbër yi la war a déglu jombul bu ñu dégloo mbër yi CNG mën naa wàññi daan yi wala sax mu baal leen. dëgg la mbay Babacar loolu la journal suñu bu wax benn interrogation maanaam benn laaj la ci yoxe nee na euh, samedi bi passé mbër yi ajoon mooy juróomi mbër yi nga xam ne nii da leen ajoon ñaari at. Euh, yoo xam ne nii benn at bi dan koy tëdd ñu interdit leen dun mën a accéder ci arène bi en même temps seen reliquat ñu retenir ko Euh, mbër yooyu nag samedi bi passé CNG dafa convoqué seen présent écurie yi ginnaaw ba mu leen dalalee nag li aadama Bopp mu nga xam ne ni moom mooy porte parole euh, CNG bi ginnaaw loolu daf ne jombul euh, mbër yi ñu leen waaye dara leeragul nag ay waxtaan la rek ndax mbër yi war nañu demaat CNG war na leen a waat ci commission de discipline war na leen a convoqué waat bu ñu fa jógee xaj na daal ñu jéggal leen oh, oh. mooy noonu nañ xool noonu gën a rafetee rek daal di koy defee noonu. waaw bu ñu leen jéggalee nag xam naa dootuñu ko defati. déedéet dootuñu ko defati. Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro 2 ficelé Eumeu Sène Gris Bordeaux les grands perdants Mbaye Babacar xam ne danga mooy ba ñaan ñooñu sëggee bëri kii di Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ñoo ciy ñàkk. Gris Bordeaux ak Eumeu seen ñoom ñaar ñoom ñooy perdants yu mag yi nga xamante ne bii ñoom ñoo taxaw ci combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñoom ñaar daal ñoo ci gën a ñàkk ndax ñoom ñaar ñii ku ci nekk. Euh, amoon nga sens su bëre ak euh, ñaar ñële am combat. Mm. muy Balla Gaye 2 ak euh, ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Niang loolu la journal bi bind. dëgg la loolu la journal bi bind xam nga bi après Lac de Guiers Eumeu Sène ba mu jeexee ba ay information yi da doon daw ne Eumeu Sène Balla Gaye 2 la ba kii di promoteur bii di Gaston Mbengue doon waxaale. Mm-hmm. ba dem toog ci tele bi confirmé ko. maintenant mu dem xam naa jubóowuñ ci xaalis bi mu war a fay Eumeu Sène looloo tax nag mu bàyyi fa Eumeu jox euh, Balla Gaye 2 Boy looloo tax nag journal suñu laa mu ne Eumeu Sène ak Gris Bordeaux peut-être ñoom ñoo ciy perdre ndax Eumeu Sène mënoon na daje ak Balla Gaye de même que Gris Bordeaux également amoon na chance pour daje ak Balla Gaye looloo tax daal journal bi ne ñoom ñaar nii ñooy les grands perdants. trio VIP boobu la ñu war trio boobu dañu war a tas bu baax Balla Gaye dékkee loxo fi nga xam ne mooy Boy Niang doon di jeune war a bëreeg moom Eumeu Sène noonu la war a def kii di Gris Bordeaux aussi noonu la war a ah, sax loolu mooy yaatal làmb ji gis nga làmb ji suñu bëggee mu yaatu xale yi dañoo war a fekk si mag ñi ndax ne nuñ koy waxee garab ci kaw lay fekkante loolu mooy dëgg ci noonu nag pour son combat royal contre Modou Lo ba ca Parcelles bëgg nag mooy détrôner ko kii di Ama Baldé sur le point de s'envoler en France mu ngay takk la mu yor nag nee na daal dee dem di yokk cere dollu ñeex ngir jëlee couronne bi paasal yóbbu ko Pikine Mbaye. wax na dëgg de ndax ndaanaan la war a bëreel de Modou Lo moom ku jox avance am say mbokk du ñu nelaw yow bu fekkente ni bii xam nga ki ngay bëreel waroo nelaw. Hmm. Ama Balde nag loolu la xam ba tax na nee na incha allah day takk ay dëbësam jëm tugal. Hmm. gën a waajal bu baax a baax a baax ngir bu jàkkaarloog Modou Lo mën a fuqarti couronne couronne bi ni nga ko waxee yóbbul ko waa Pikine dëgg la Mbaye Babacar loolu la journal bi annoncé nee ne Ama Baldé ngi waaj dem France pour entraîner ji waaye lu ci ñuul mooy jabar ji la jëm njëkk <laughs> balaa commencé entraînement. <laughs> asal looy reetaan. <laughs> ci jabar ji la jëm. avant muy entraîner. loolu tax daal journal suñu laam nee ne Ama mi ngi dem. seeti jabaram waaye bu ci paree nag day continuer préparation euh, foofu ci France pour que bu mën a ñëwee contre Modou Lo mu pare physiquement moralement mais également psychologiquement. macha allah Sarwara yaa ne Ama Baldé ci jabaram la jëm d'accord. ko wax. Ama dina ko dégg loolu moo. <laughs> journal bee ko wax Assane waxu ko. moom loolu la maa ngi lay jaajëfal bu baax ah, loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo. jaajëfal ñëpp jaajëfal la ndey Mbacke jaajëfal Assane dig leen daje incha allah suba ak jàmm ci seen beneen revue de l'arène. Assane Waalo. di la remercier Ndeye Mbacke di remercier Mbaye Babacar équipe bu Leewtoo yëpp Yacine Fall di leen jox dig daje suba ak jàmm incha trio bi la kooku Sidi Yacine Fall mu ngi noonu di kontaan ci yéen bu baax a baax ah. Yacine Fall maa ngi lay béggee bu baax a baax Mansour Ousmane Bamba ji kontaan naa ci yow trop Kébé sama lonko moomoo maa ne sama chauffeur bi loolu dawul rek baaxul Fama ak Matu maa ngi leen di béggee bu baax a baax leen jox di daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah